waaw mbokk mi di laaj ci kooku nga xam ne xale boobu de na guddi jotee du gis waaye bu bëccëgee muy gis loolu mooy bempeñ bempeñ bempeñ la ko mag ñi daan wax dañu dal gune yu bëree bari nag xëy na nit ñi dañ ko du selu rek xam ne toujours nga gis gune def loo xam ne guddi boo amee surtout ñun ñi yor mbooloo yi doo ngay boo ko xoolee da koy gis moo tax léegoo la nga gis ñoo xam ne soo seetlul seen ak nekkin ba xam ko dëgg man nga jëfandikoo ñoom ci ñoom erreur yoo xam ne fekk du seeni coobare maanaam ni mu demee la loolu day laal lu bari ci xeeti gune danga gis nag mu dal ñu dal ci gune dama yàgg sax mu dëñ ndax ci sabab yi nga xam ne mooy tax loolu dalaate moom bempeñ boobu da nga gis muy dal mag waaye gune yooyu ni nga ko seetloo noonu bëri na boo toppee gune yu bari daanaka da leen gis loolu danga koy gis jafe-jafe lay boo xam ne ci wàllu euh, bët bi ci nu may gise nga xam ne tey gisam ci lëndëm du yomb wala sax ñenn ñi bul xawee leer nii tuuti rek faw day leer nañ ñu mën a gis waaye su leeree tuuti duñ mën a gis loolu la su ko defee ay jafe-jafe paan paan la yoo xam ne day am ci wàllu euh, euh, bët boobu di ko yóbbee loolu noonu mën na dem sax nag léegoo-léeg muy tawat yu ko waral léegoo mu ngi ci dundin yu koy waral bokk na ci gis nga ñi nga xam ne tey seen dund jaarul yoon noonu day am xale yi nga xam ne tey dañuy judd surtout manqué loolu ñuy wax vitamine A ñooñu toujours dañuy am jafe-jafe boobu ci seen bët moo tax man nañuy dem am yàgg ci wàllu dundin rek gis nga ko ñuy dundoom yàgg loolu dañ duñ ko gisati moo tax mën na mën na dal gune mu yàgg mu doon mag soo ko loolu loolu ko gisati su fekkee ci wet googu la ñenn ñi gis nga ko mais xëy na am na lu leen ci daloon gune yi ni ñuy demee loolu laal leen ci loolay tax man naam eh, ñu gis ko ñi dañuy ay famille la am famille yoo xam ne da leen gis loolu la yëpp leen dal ci gune ñu màgg mu dëñ wala sax mu leen dal gune ba ci mag da gis loolu di ci ñoom ñenn ñi da ngay gis ay garab mën na dab sax du gune wala mag waaye lu mu ko yóbbee ma gis nga ay garab yu mu doon jëfandikoo tawat bu mu doon faju gis nga ko surtout ci kii bët yooyu dana koy def tawat yi laal bët yi ci gën a bëri am na ci yoo xam ne garab yi ñu ñu koy fajoo soo ko fajoo diir bu yàgg loolu mën na ko yóbbu topp ko rek di ko jëfandikoo moo tax toujours la ñuy wax bët moom fajoom bët mm, moom day am ci koo xam dëgg-dëgg ndax am na ci jafe-jafe yoo xam ne gis nga ci biir faju mi ngay faju sax man nga ko ciy jëlee moo tax euh, loolu it am na ñoo xam ne noonu la leen dikkee su ko defee mandarga yi mooy am nag mooy li nga li nga wax noonu man na ba gi doo ci xam moom dara waaye bu guddi jotee rek tey ji ma am jafe-jafe man nga dox rek mu ñëw nag til ci sa kaw sax nga ko lii waaye te du yëg sax ne moom loolu loolu day dal day dal gun yi wala bat yi am allergie noonu di xeesa nag yu mel noonu wala am lu may bañ. wala muy xonq sax ba di nga ji muy def rongañ noonu wala muy taas def ay xonq-xonq noonu loolu mën na koy def noonu wala mu dem ba gis-gis bi sax fulu nga xam ne tey mën naam sax di gis nii waaye li muy gis da koy gis mel ni ay mu jaxasoo noonu du xam lan la loolu it da koy gis noonu mu di ko def kon dana am mandarga yoo xam ne tey mandarga yi ñuy xool nii di ko gis la wala am na mandarga yoo xam ne da koy def nga di ko ci jëf la koy def nga di ko gis yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne dana koy feeñee ci moom surtout xale boobu su ko nag bu dee yi nga xam ne vitamine A la moom manqué kooku jëfandikoo loolu sax surtout lem gi baax na ci trop suñ ko xamee nga di ko jox lem rawatina nga boole lem ak jinjar jinjar bi nga def zi jinjar di ko suukarale mu di ko naan suba bëccëg ngoon baax na ci lool am na ñuy boole karoot bi ak jinjër ak lem carotte def jiw carotte boole ko jinjër jiw jinjër léegi jaxase ko su ko defee léegi di ko sukara lem mu ko jël kaas bu yem suba bëccëg ngoon bu ko saxooy incha allah yàlla mën naa def tawfiq ba loolu mën a dem ba ba dëñ Euh, garab bi gàncax bi xaw ma ñax bi ñuy wax mbuum mbuum nduur mbuum nduur baax na ci lool xobam yooyu su fekkee kom dalma mi ñu xam ko nduur nduur boobu ñu daan def mbuum di ko jëfandikoo moom it baax na ci xob yooyu su fekkee léegi moom itam am na ko mu am ci lu yem rek di ko def ci baraan tàngal comme ni ñuy tàngalee ataay rek te mu woyof bu ko dee di ci xeli kaas jox ko may ko daan saa yu lekk nga xeli kaas bu yem jox ko mu daan insha allah bu ko sawee moom mutum mag ñi daan nañ ko ci faj borom mën naa def tawfiq ba loolu mën naa saabaru ba ci gëng gis nga xobi gëng yi moom baax na ci trop daan nañ ko fajee ci xeeti bët yooyu ko baaxalee ba mu baax moom itam mu segg ko teg ko fi mu bañ a weex saf bopp mu di ko naan saa boo xëyee mu naan ci mu naan ci kaas bu yem su ngoonee mu naan allah bu ko